combat bi nag dina am ay wor-wor ci côté Serigne nag ci menn mbër. tey nañ bàyyi xel ne muuru na bàyyi xel bu baaxit ne. combat bi komba bu dis gann la. bokkut ak yi mu daan bëri. waaw xam nga li tax ma wax loolu mooy ki muy bëreel. du mbër moo xam ne. dafa néew gannaaw. Mhm. day mbër mu bari ay soppe. Mhm. ba pare bari ay mag yu xam dara te ànd ak moom. Modou Lo it kasaalika waaye nag Boy Niang daa am nit ñu weex di ko ñaanal nit ñu ñuul di ko ñaanal tegtali làmbit suñ borom dogal mu am ci loo xam ne loolu ma waral ngir mu am ndam ci làmb doon lu yomb lool kon nag ñoom ñaari làmb yooyu fi ne guddi ñu tollu jërë ngeen jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen yéen ñu faral si daan Vision TV euh, tey nag ñu daalal Serigne Mara Diagne dinaan waxtaan ak moom euh, ba ci euh, seet bi seet mi nga xamante ñu bëri jàpp nañ ne dem élection bu ñu jógee foofu nañ dem ci làmb parce que làmb noonu ñàkk ñu waxtaan ci gis nañ ne Modou Lo ak Boy Niang di ci des daanaka ay fan yu néew la dinañ waxtaan ak moom lépp loo xamante ne luy jëriñ askan bi la fii ci yëmbal Vision TV dañ koy bàyyim li yooyu ñu continuer waxtaan bi Serigne Mara ñëw lay ziar waaw kay suñ général noo ngi lay delloo ab siyaar bu baax a baax di ñaan suñ boroom defal la tawféex bu baax a baax di delluwaat fañ daan tàmbale rek muy wax xaala rabbukum adduxooni astajib lakum inna allasina yastakbiroona an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin di wax ne nag adduxaa usilaaul muminin ñaan mooy ngàndal jullit di wax ne maa ngi nuyu mbooleem koo xam ne ab soppe nga nekk ci réew mi wala nga nekk fu wuteeg réew mi di ab soppe maa ngi lay nuyu bu baax di jéggulu ñi nga xam ne saa yu nekk ñu ngi woote jafe gee jot di am may wax ne mbooleem koo xam ne woo nga ma rek jotuloo ma danga may bàyyil lu mel ni message ci whatsapp bi su ko defee eh, bun ko bu buñ féexee rek bu ñu ko xoolee dinañ mën a continuer geew ci li nga bëgg. am na solo kon noo ngi leen di saare bu baax di ñaan suñu borom def ci réew mi jàmm. jërëjëf euh, am na solo trop euh, fi ñuy commencé mooy daanaka euh, combat bi ñëw na am nga loo ñu waxoon nga ne combat bi balaa muy commencé wala sax balaa muy agsi dinañ ci joxe ay leeral yu am solo te nag bëgg naa ñu xam taxawaay yi nga xamante ni lam ji fi la toll Modou loo ak Boy Niang daanaka li ci des bëreetul. Hmm. naka nga gisee combat boobu. tolluwaay suñ général euh, bu ko defee nga dimbale ma may ma tuuti rek bu ko defee ñu jëm ci wàllu li nga xam ne mooy ci côté Ousmane Sonko. ñu commencé Ousmane Sonko. waaw li nga xam ne moom lañ ci suñ borom woon. Mm, mu mel ni mbiram daanaka dañoo ñor lool ba daanaka saa yu nekk rek ñuy xool ay tolluwaayam ci liñ yéene ci moom ngir mu euh, nekk candidat wala yu demee noonu. waaye dafay mel ni rek. saa bu nu xoolee guddi yi ñu toll ay lëndëm lëndëm da ciy nekk. mu mel bu amee guddi yi danañu bett lool. Mm-hmm. donte saa yu nekk ñu ngi génne suñu alal di ko def ak di génne tegtal li nga xam ne moom la ñu xam-xam woon. Mm-hmm. di ko ko defal ngir liñ bëgg ci moom mu antu waaye mbir yi de yàlla mi nga xam ne nag mooy Karim nga xam ne mooy dogal. Mm-hmm. dafay mel ni rek euh, côté boobu day xaw a lëndëm ci ñun saa yu nekk. mooy tax waaw nekk nekkam mën nañoo bett waaye nag ñi ngi ñaan yàlla suñu borom nekkal ko. bu dee ci côté Karim Wade nag bu góor góorgóorloo dara moom mën naa kii ndax mbiram fi mu ne day feeñ ak a nëbbu di feeñ ak a nëbbu moom Karim Wade day wuuteeg ki nga xam ne nag ñaare daanaka dangay def ba sonn waaye daanaka doo gisagun lu leer ci moom mhm. nee loolu moom mbirum yàlla la bu mhm. defee ki nga xam ne mooy Karim am na possibilité wala am na am nañu yaakaar ne bu duggee ci làng gi yàlla mën na koo may euh, maanaam daal mu bokk ba bare am dara ci mbir yi tuuti. su ko defee kon loolu ñu koy bàyyi xel bu baax suñu général. dafa mel ni yaa ngi doon wax ci làmb ji kon. <laughs> maa ngi doon wax ci làmb ji parce que it euh, askan bi parfois dafa am ay questions yoo xam ne dañ koy faral di poser. Hmm. ñu bari jaaxal na leen diggante Modou Lo ndax Boy Niang Modou Lo mën na koo daan mu ne question boo xam te ni ngi lëmbe ci commentaire hmm, waaw kay comme loolu defe naa suñu euh, jotaay bi mujj rek. maa ngi ciy waxtaan ak yow gannaaw baat ñu bari woon nañ ma ci ñoo xam ne ñenn ñi ci Modou lañu ñu fare ñenn ñi ñu ngi fare ci Boy Niang mm-hmm. ku ci nekk wax na nga bëggee mm-hmm. bu ko defee ñu ne ñu wax leen nañuy defee loolu mooy waral daanaka xëy na fixé gu ci fenn waaye li nga xam ne mooy wane wane bi mooy lu njëkk la ma la jëkkoon a leeral jëkkoon naa wax ne la Boy ñaa ci biir seet gi moo nekk ci kaw moom Boy Niang moo nekk ci kaw waxoon na leen Moodu day koo xam ne mbiram day soppiku mën naa dem ba ci bisu làmb ji mu soppiku. Mhm. Moodu yàlla da koo booleek ay rawaan yu am doole ci côté làmb. ba pare boole kook tamit ay rawaan yu yuy lekk ceeb maanaam li ma ko mën a misaale mooy. Euh, boole ko ay nit ñu xereñ ñoo xam ne ay sëriñ lan mm-hmm. te lu gàllaaj laaj ci ñu def ko ci diggante mbër ma moo war a bëre dañ koy jaral dañ koy def ndeysaan bu jaree sax ñu gëlëmal mm-hmm. koñ bañ jëm def ko dañ koy def ndax ñooñu ay sëriñ daa am ay sëriñ mm-hmm. combat bi nag dina am ay wor wor ci côté sëriñ nag ci menn mbër waaw tey nañ bàyyi xel ne Modou na bàyyi xel bu baaxit ne combat bi komba bu dis gann la bokkut ak yi mu daan bëri mais dafa am loo wax ne dina jaaxal ñu bay nga ne euh, combat bi Modou na bàyyi xel parce que ki muy bëreel lu mu tax nga wax loolu. waaw xam nga ni tax ma wax loolu mooy ki muy bëreel. Mhm. du mbër moo xam ne. Mhm. dafa néew gannaaw. Mhm. day mbër mu bari ay soppe. ba pare bari ay mag yu xam dara te ànd ak moom. su ko defee foofu la Modou di fagaroo bu baax. ndax lim yor ak cër la bu mu yor moom Modou. cër beet xëy na yéene nañ ko ko noonu. Mm-hmm. waaye nag combat bii mu dëgmal nii. Mm-hmm. dafay am côté boo xam ne bu ci sàgganee tuuti rek na fagaru bu baax ci côté nit ñi ko daa fréquenté ci côté ñi nga xam ne amoon nañ cofeel ci moom sax tam xam na dëgg la. Mm-hmm. dañ am ñuñ doon ndax ki mu war a bëre nag. daanaka day ndakaaru. doonte dëkku fi. doonte cosaanam ma nga saabe. ndax xam nañ ko bu baax xam léppam daanaka mën na ne waaye nag. ba tey day ndakaaru ndax mag mag ñi xam dëkk bi dëggantaan ak nit ñi xam dëkk bi ak sëriñ si nga xam ne tamit dañoo yàgg a ñaan mag ñooñ jaxasook ñoom lu dul seen ndam ñoru leen da nga waxoon émission bi passé nga ne booy ñaan nit ñu weex ñu koy ñaanal mhm. mel ni ay xaadir lan mhm. ñu nekk côté xaw ma mburtani la xaw ma daal waaw waaye an balaa may ñëw ci lool sax mhm. euh, damaa bëgg a xam li nga jot a wax noonu balaa may ñëw ci côté boobu ndax da koy seet ba gis ko ak ban façon seet koy seet <laughs> waaw comme niñ koy ko ni ma lay rek seet day lu am solo seet day mbir moo xam ne lépp lu ab sëriñ di tan di ko wax rek mën na ca am gàcce xam nga dama lay wax ne la seet dañ ci yor yu doy waar yoo xam ne mësuñu koo laaj dara mu wax ñu ko ñu nettali ko amaat ci gàcce waaye nag day seet gu jafe tey seet goo xam ne faaw nga def ci himma yitte ju leer génne ya nga war a génne nga joxe ko seet te mbir ma nga war a seet saa bu la leer saa bu la leeree saa bu mbir ma leeree te dugaloo ca dara lu bokkut ak dëggal ba mu leer la su la leeree mën na laa bañ a war moo tax seet dañuy wax ne xam nga dañuy wax ñenn ñi sax dañ naan awuma ci nawle waaye loolu dañ koy rusa wax di ko ragal a wax waaye daal suñ boroom may nañu ci loo xam ne wax ci dara nit mu mu ko loolu yombul. ndax day luñ jàng gëstu ko bu baax a baax. laataa ñuy génn ci média yi di wax daanaka toog nañ at yu baree baree bare yoo xam ne xam-xam rek moo ñu ñor. xam-xam xam-xam rek moo ñu ñor. maanaam mu jaral ñu mu jaral ñu. ñu dem ci fu nekk jaral ñu génn suñu alal def ko ci ngir am xam-xam boobu bu ñu demee nag ba suñu borom dimbali lañu saa yu ñu jëflantee nit mu ne alhamdulilahi ñu doog génn teg suñuy jàjj nag ci digg ëtt bi ngir wone li li nga xam ne moom lañu suñu borom jagleel mm-hmm. loolu mu ñu jagleel nag suñu borom mi mi nga xam ne mooy aji suturaal ji mi ngi suturaal bi suñu jëflante ak doomu aadama ci aajo bu mu mën a doon mm-hmm. te néewut alhamdulilah rawat na lu mel ni seet am solo trop da nga doon wax sànq benn point am solo Euh, nga ne euh, booy Niang dafa am ñu weex ñu koy ñaanal ñu weex ñu mën na mënoo xam naka la demee parce que ñu bëree bëri dafay lënt seen bopp. Hmm. en tant que nit ku ñuul ndax ku weex mën na koo ñaanal. waaw waaw xam nga Boy Niang euh, dafa gëm sax ci côté boobu lu bëree bëri. Hmm. ñi koy ñaanal ñenn ñi dañoo nekk ñoo xam ne day taxaw côté wasilaam. comme ni nga xam ne hmm. tariixa tijaan da koy am tariixa murid di ko am xaadir yi di ko am. moo am ci nag ñoo xam ne ay mag lan ba pare di inti yàlla ba pare mu fay jëf-jëf joo xam ne faaw ñu koy ñaanal. donte làmb mën na ne ba ñor waaye bu taxee bu tegee yitteem ne damaa am yitte ci nangam bëggoon ko mhm. suñ ne ko dana sotti pour loola fangu man naa jafe mhm. moo tax nit ku ñuy ñaanal la Modou Lo it kasaalika mhm. waaye nag booy ñaa daa am nit ñu weex di ko ñaanal nit ñu ñuul di ko ñaanal tali làmbit suñ borom dogal mu am ci loo xam ne nit mën na koo mag waaye mën ko cee bañ am nag loolu ma waral ngir mu am ndam ci làmb doon lu yomb lool kon nag ñoom ñaari làmb yooyu fi ne guddi ñu toll dañuy xëccoo rek ci côté sëriñ dañuy xëccoo am koo xam ne ay sëriñam mën nañ ko war na kooku bàyyi xel loolu am na koo xam ne ay sëriñ mën nañ ko war dinaa ñëwaat ak yow ci woor googu nga wax hmm. euh, dinaa ñëw léegi nii ci mbirum euh, galaaj yi ñuy xëppoo ñoom ñaar hmm. mais balaa may ñëw foofu bëgg naa ñu dugal noob hmm. noob nekk loo xamante ne yaakaar naa kenn dootu la présenté sax ci mbiru noob ah, euh, fii ci Sénégal ah, yan façon noob ngay noob pour ñi xam ne ñu bees nañ ci chaîne bi comprendre parce que it nekk ki nga bëgg da ciy baax parfois nga xaw a def loo xam ne dëgëral bi waaw xam nga moom damay wax ne comme ni ma la wax léegi ci lay dañoo baaxoo di naagu naan damay def nangam ci nangam ak nangam ak nangam ndax loolu mm-hmm. loolu loolu loolu sunu sunu sunum xel sax mayu ñu koy def mm-hmm. waaye yàlla bi nga xam ne nag mooy dimbale doomu aadama ci bu nekkee ci dara xam ne lim nekk mën na ko wala lim nekk mi ngi ci réussir wala lim nekk saa defee dara rek am ci résultat mm-hmm. loolu suñ boroom dañ cee dimbale ci nopp mu mel ni loolu yéen ñi duñ jël saa yu nekk rek man ngeen ci am jaajëfi doomu adama ju leen woo wax leen ci lu mel noonu suñu jëmm mu mel ni noob yooyu ñuy def nag ci xam-xam rek la tege. damay leeral fi yi yi ñuy consommer yi nga xam ne moom la ñuy boolee ngir nopp ngir noob gi mën a jàpp. Mhm. yooyu daan naa ko leeral. Mhm. waaye li gën a gàtt ba gën a gàtt mooy. Mhm. noob gi daal incha allahu rabbi. wala kum yittewoo ci jëmmam dara. ak lu mu mën a doon ba ñu joxee aw turam ak turam. te turam ñu jox doon wi ñu koy woowee rek. incha allah mën nañ koo noob ci diirum ñeenti fan mën nañ koo jàpp ci diirum juróom-ñaari fan. maam nit koo bëgg rek. koo bëgg rek. na am tur te boo ko wooyee mu ne mu wuyu. doon ku ànd xelam ku dufut. bu boobaa saa bu nu ko noobee rek daa la topp ni nga xam ne noonu nga bëgg mu topp la. te sax day gaaw ndax ñeenti fan lay am jàpp juróom-ñaari fan dara dootu leen mën a tàqale. Mm. te naw gi may noob dama lay wax ne la saa yoo ko defee nit nga sori ko noog gi day tax du mën a ma yàlla ci ci ci keneen ku bokkul ak yow. Mm. loola nag. xam-xam la bu leer boo xam ne fas yéene nañ cee dimbale mbooleem koo xam ne dem nga ba jort ne nopp amatut dama koy wax saa yu nekk léeg-léeg nit woo ma ne ma damaa foogoon ne amatut sama téléphone daanaka ñaare saa boo xoolee jaajëfi ku doon nopp bari da cee bari lool wala jaajëfi ku tëju woon mënoo ubbiku mënoo am mënoo amati dara wala jaajëfi ku doon lijjanti kii mënoo ko am loolu nag ndimbalul yàlla yàlla mi nga xam ne nag moo yor mooy faj aajo yi te saa bu ñu tegee loxo ci mbir rek mu fekk suñu du fajal ñu aajo yal na ko yàlla gën a dolli. amiin am na solo trop euh, dañuy ñëwoon léegi nii ci mbirum cangat yi xamante ni mbëri ci la ñuy faral di sangatoo. Mhm. yow nga ci joxe ay sangat yu am solo. Mhm. mën ngaa leeral diggante Modou Lo ak Boy Niang. Mhm. yan façon sangat yi nu ñuy sangatoo mu gën a baax ci ñaari mbër yooyu. waaw xam nga côté boobu day am loo xam ne boobaa. dana xaw a dana xaw a mel ni ab sànni sànni ñaan gi. bu dee ko mel ni booy Niang lépp lu mu daan def ci làmb mhm. lu mu làmbam daan laaj ci sangu ak takk su ko gënee mën a yokk sax na ko yokk ah mais naka la koy yokk te Modou daanaka du sangu waaw mooy li ma la wax rek Modou dana sangu mhm. Modou yoon na ay ñaanam di di def li mu war a def ay mhm. tegtalam lay de lay ñëwee des fois ci làmb ji te tegtal yooyu bu la jigee benn yoon Mm-hmm. ki la ko digal nga gëm ko wóolu ko mu waxaat la ko mm-hmm. da koy gëmaat wóolu ko mooy sukkandikoo ci mooy waral nga ñëw doo takk dara mm-hmm. waaye nag la nga war a def lépp danga ko defee fa nga fa nga war a jóge doo ko ñëw kalay ñaanalit tegtal ya nga xam ne dana koy joxe saa yu nekkit dana la ko jox jox gim la koy jox mooy saa yu tolloo ci waxtu wi sab téléphone dootu teggeeku dëgg la ngir man koo jot ndeysaan te loolu feeñ na ci diggante combat yu bari yoo xam ne ko seetlu mu danga gis ne combat bi xëy na gisuñu ko muy takk ci biir mhm. làmb ji dëgg la am na sangat yoo xam ne sax mën naa am nag ci biir làmb ji yoo xam ne bët mën na caa bañ a gaaw a tege waaye wooteeb téléphone ak tegtalee moom fu mu toll di ko def moo tax booy ñaa côté boobu mu sukkandiku mukk lu mu daan def ci gàllaaj mhm. na ko def bu baax a baax ndeysaan ndax gàllaaj jig na ko mën naa am combat bi di ñëw sax muudu sax ñëw ñëw ñëwee nag mu bokk nag ni mu ñëwee woon ndax wàllum tegtal làmb la Mm-hmm. su ko defee loolu mooy tegtal bi mooy li nga xam ne moom lañ la ñuy jëfandikoo ngir am ndam moom mm-hmm. yooyu moom suñuy bon suñuy mbir la yu ñu téye yoo xam ne mm-hmm. ku ne ku ne nga jëf wax ak ñun di jëf bëgg jëflante ak ñun loolu kuñ jiwoo ñu jàppale la jox la tegtal bi nga xam ne boo ko defee su soobee yàlla mi maye di nga di yaay yaay yaay gàddu ndamul làmb ji incha allah am na solo trop bu ñu waxee cangat yi xam bëri ci lañ cangatoo mais teewut yow itam gis nañ nga defar ay cangat yoo xam ne yoo xam ne ñu bëri yaa koy bindal sa bopp waaw lay ndeysaan waaw xam nga lii suratul waaqi'a la rek bu ñu ubbi meem yi def ci ay ay ay mbir mu am nag lu muy àndal nga war koy sangoo ki nga xam ne dafa tëju suñ borom dogalut am amam daal di yeex lool mm. wala suñu borom dogal mbooleem loo xam ne dox na ci jëm dafay mel ni loolu da koy day an yar ginnaaw du ko mën a jot mm-hmm. mboolem lu muy lijjanti muy dëggal. Mhm. mboolem loo xam ne daan na am ci wërsëg. mu leer na ko ne daan na am ba yàgg mu tàmbalee yëg ne am man bi ngi deltu gannaaw. bu nu mhm. woowee téléphone ñu jàppale ko ci lii. wax ko ni mu koy defee te boo ko defee incha allahu rabbi balaa at maa jeex dana am koom koom moo xam ne. man mhm. naa dana xam bu wér-wér ne koom mi am lii mu jëfandikoo ko moo ko may. ci daraje suñ borom ndax lii alxuraan la mooy waxi saa borom. te mu dëxëñ alxuraan mooy saafara mboolem jàngoro bu mu mën a doon. Mhm. su yàlla dogalee sax mënoo cee jàng mënoo koo jàng suñ borom dogal faruloo ji mënoo cee jàng dara. Mhm. nga bëgg alxuraan teg ko rek. Mhm. mu tege sa néeg nga fas yéene saa boo jógetee. xew ba defar ko ba mu jekk nga def ci parfum am yéene mokkal ko rek. suñ borom da lay daal di jox tiyaabay ko koy jàng. alxuraan lu foor la. te mboolem koo xam ne nag secret bi defal nañ la ko suñ borom dana dogal comme li ma la leeral. sa am-am dana la da dana yéeme ci yow ba mboolem ko den nag yow sax mën naa foog na nekk ci leneen. macha allah su ko defee noonu lañ ci amee ay ndomba yoo xam ne dañ koy joxe. naa bëggul ñëw ci ndombo yi sax mu nekk ndombo yoo xam bi paas ma ñëw dafa mel ni benn laa fi fekkoon. dafa mel mm. nag am na yeneen yu fi nekk. waaw waaw ndombo yi moom léeg-léeg day ko day dolliku yii nii day ay yoo xam ne sax ah tey moom daanaka yi nga defal bëri na de waaw yii sax day yoo xam ne moom daanaka jekk na ba noppi mhm. bu ko defee téere yi nga xam ne day dox ci wàllu noo bi ñu ngi noonu waaye bu dee ndomb yi nga xam ne day dox ci wàllu ubbiku nag yi mooy pour ubbiku bi waaw bii mooy pour ubbiku bi lii nag wàllu kaaraange la bu ànd ak bu ànd ak bayre mhm. waaye bu dee bii mhm. ubbiku rek la ubbiku bi comme ni ma la ko leeralee ubbiku gi day am mbind muy àndal moom alxuraan ju muy àndal alxuraan jooju muy àndal day am parfum bu ciy ànd. Mhm. parfum boobu da ci ànd boo takkee ndox mi nga sangoo ko juróom-ñaari fan suñu borom it daal la may wërsëgu yaatu woo taxaw sa loxo ndax bari waa na koo xam ne dana am wërsëg maanaam dana lekk dana naan dana sol bu bëgg na yi mu bëgg yëpp mën nay jàppandi nii waaye nag boo ko fëggoon day ne ko nangam laa soxla du ko génne loolu la koy gën a waral nag mooy am am boo xam ne dafay taxawee loxo dañ naan loxo bënn waaye am am boo xam ne maanaam dafay tàng alal ju tàng joo xam ne saa bu duggee sa loxo rek day daal di génn donte mën naa faj aajo waaye alal ju dajaloo sa loxo lii nag boo ko amee di nga dayalee xaalis ba xam ne dayalee nga ko bu la nit fëggoon ne la nangam laa soxla boo làmbi da nga ko fa fekk mm-hmm. ndax day tax sa alal taxaw bu ko defee mbooleem koo xam ne rek suñ borom natt na la ci côté boobu boo na woowee ñu dimbali ci ak loo sori sori ak loo jege jege ndax bu dee réew moom mën a nekk ci àddina maanaam am nañ ñu fa mën a dem soo ñu woowee boo ñu waxee sa mbir nam demee bu ñu noppee boo amul ku la ko indil ñu teg ko ci loxo mu ñëw ba ci yow incha allahu rabbi am na solo trop bu ñu waxee loolu aussi mënul ñàkk ñu wax ci mbirum ngóora mm-hmm. balaa ñu ñëwaat ci lam ji parce que lam ji it euh, kan mooy daan ak naka la jeekoo bëgg nañu wax ci tuuti même boo waxul tur bi sax nga juñ ko mais mbirum ngóora aussi nekk lu sonal askan wi nekk ñu mm-hmm. bëri di ko jàmbat ba ci émeri ndoxum siti waaw mbirum ngóora nag damay wax ne Euh, daanaka day mujj adapté day waaj adapté wu normal nga xam ne day ànd ak ñun nga xam ne day mel lu ñu mën a tàqaleel ci ci réew mi te la koy gën a waral mooy lekk yi nga xam ne moom lañuy ñuy dundee. Mm-hmm. waaye nag ñu am ci ndimbal yoo xam ne saa bu nit ki nangoo ñu jox ko liñ koy jox ndax ñaareel li koy def. Mm-hmm. rab da koy def ci góor maanaam ñàkk kàttan naturel li da koy def ci góor. maanaam da koy def ci mm-hmm. góor su fekkee rab moo la koy téye moo lay téye ba doo am kàttan. Mm-hmm. boo ñu joxe sa turu sa turu yaay bu nu xoolee nañ xam ba xam ndax rab la bu boobaa am na fas fas gooy bu ñu lay jox nga takk ko. la ca topp sunguf sa la sooy jëfandikoo boo ko jëfandikoo ba mate ni mu la ko waxee. Mm-hmm. maanaam mën ngaa diire ay at yoo xam ne kattan mën nga koo ñàkkati. Mm-hmm. mën nga koo bañ a tee ñàkk. ci ci wàllu sëy su ko defee loolu ñu ngi ciy jàppale mboolem te mboolem koo xam ne dalaa dal. nga yittewoo ko la ci jàppale rek soo nu woowee. daan la ci jàppale jàppale goo xam ne du ànd ak ab a ci wàllu wërsëg mm-hmm. ndax dañ cee fas yéene dimbale jaam yi incha allah ndax dañoo gis ne mooy li nga xam ne mi ngi waaj a daj réew mi te te te te te ten dëkk ci réew mi nag mm-hmm. te nga xam ne daanaka ñaare ñun ñëpp benn lan moo tax mboolem ko ci am jafe-jafe bu mel noonu boo ñu ko waxee suñ xoolee ba xam ne loolu mooy mooy sa jàngoro daan la ca taxaw taxaw goo xam ne di nga yëg ne taxaw nañ la ci incha allahu rabbi eh, am na solo trop bu ñu jógee ci lool danañ ñëw wax ci mbirum papier mm-hmm. papier nekk loo xamante ni askan mi soxla nañ ko muy euh, passeport muy visa ak lu mën a doon. Hmm. da nga gis koo xam ne parfois daf koy jafe. Hmm. nag nga ci jëflante ak ñoom. waaw damay wax ne mbooleem papier bu mu mën a doon ci àddina nit ñi nit ki soxlawoo ko su ma woowee. Hmm. danaa ko seetal ma ko seetee dinaa ko wax loo xam ne bu ko génnee papier ba lu mu dëgëroon dëgër dana yomb. bu dee papier tukki la bu dee papier oto la bu dee papier kër la lu mu ca mën a doon. ci àddina saa yàlla dogalee ñu déggante ca ba noppi bañ xool ba noppi buñ la waxee yi ngay génne wax la tamit papier yi ne say loxo nanga koy def ay tegtal mm-hmm. rek la na noo xam ne moom nga koy def mm-hmm. soo ko defee ba noppi insha allahu rabbi loo bëgg ci papier bi dina jàppane bu soobee yàlla insha allah insha allah waaw tabaarakallah euh, am na solo trop euh, koy tëjee nag mooy mbirum jaaro waaw jaaro euh, defe naa defar ci lu baree bari loo xam ne day génn leen lang fi jaaro lu am solo te day lu yàgg ci àddina te di secret bu leer bu wér waaye mbir nag mooy def saa yu demee ba bari ñu koy def léeg ku ne nag mën nga caa am boo xam ne du méngoog la nga bëggoon ndax ba ci moy yi rek bu dara xewoon tey nit ñi profité ngir defar ay mayo sax la nga gis mayo yoo xam ne tey boo ko solee suur mën naa teg mën naa xotti ko ndax du doon original noonu la mbirum jaaro demee jaaro ni ñu koy defaree mooy mboolem koo xam ne woo nga nu téléphone wax ñu saw tur daan la wax jaaro bi nga xam ne per bi nga xam ne moo nga mën a takk secret bi dem ci biir yi ñoo koy liggéey defal la ko ci biir soo ko takkee suñ borom dana la dimbale ci kaaraange dana la dimbale ci wërsëg bu fekkee dangaa ngaa sori nekk ak ñu weex am na secret nu la koy defalee noo xam ne mbooleem nit koo mën a nekk ci réew ma nga nekk da nga leen saf da leen neex danañ la jariñ loolu mooy secret bi jaaro te mbooleem jotaay boo xam ne dugg nga faat suñ borom dana dogal ñëpp xam ne dugg nga fa ndax doo géey fenn day ànd ak bayre ànd ak kaaraange ànd ak ubbi ko ci wàllu wërsëg ko defee mbooleem koo xam ne yittewoo nga ko boo nu woowee daan la ci jàppale incha allahu rabbi